ne aussi ab scientifique la mm-hmm. am yoo xam ne nii na xam war na ko mën a xam wala boog moom ñu ko xam wax ko ci entourage am surtout que moom bari na ay conseil sax mm-hmm. Assane Mangane inondation yi nekk Sénégal li ñu wax ci plan décennal waxoon ne d'ici dix ans dootul am mm-hmm. ndax bi nga xoolee plan boobu déjà laata sax dix ans yi mat parce que borom xam-xam moom am na yoo xam ne bu liiree xool rek war naa mën a xam ndax yéen na maanaam déet ndax jàppoon nga ne lañ dëxañ ci plan boobu mën fii ci Sénégal masawu ñi nga xam ne yàqule nañ ak coono bi ñu daj vendredi ngir ñibbi seen kër ndax ndox mi xojoon na dakaar xoj boo xam ne ni yaakaar naa am na ñu wàcc seen liggéeyu euh, barabu liggéeyukaay quatre heures ba trois heures du matin delluwuñ seen kër ak euh, bakkan biñ ci ñàkk aussi te ñëpp yëg ko ñeent lañ wax ñett ñi ngi jaale seen i njaboot mm-hmm. xam nga Pape Sénégal c'est le pays des paradoxes c'est le en fait booy wax Sénégal dañu wax ne bay bay bay ci bay lañ yaakaar ban bay mooy agriculture sous pluie normalement bu taw amee xéewal la war a doon waaye dem nañ Sénégal yàqu-yàqu yu bari na bari yu nga xam ne nii ba tey bu tawee ñun sax dañuy tiit maanaam taw daf ñuy tiital léegi loolu dama ci fekke rek li sama mbokk mi wax muy biram manque de sérieux la manque de planification xam nga on a de très bons plans plan euh, national d'aménagement mm-hmm. développement des territoires mm-hmm. soo demee ci région yi les li ñuy wax les les les SUDO les euh, euh, au niveau des les strates au niveau mm-hmm. des département les SUDO les outils de planification sont là bien bien ficelés et bien écrits mais xam nga dafa nekk ay politique yoo xam ne nii c'est des politiques volontaristes c'est-à-dire ki falu moo koy doxal te nu nan la koy doxalee ci maanaam politique Sénégal moo moo xaw a salte ñu baal ma ci wax bi ndax ñun suñ politique yi ñu yi ñu fal ñoom xam nga lan lañ lan lañ gën a farataal maa fi def lii dut baaraam te aménage assainissement malheureusement dafa ingrat c'est-à-dire lay yóbbu ndox ma lay yóbbu ndox ma doo ko gis doo ci teg bët mm-hmm. doo ci mënoo ci teg bët parce que dañuy gas suul ko mm-hmm. ëllëg ñoom duñ ci mën a duut baaraam mm-hmm. xam nga ku TER bi TER bi dañ ne ay mille je ne sais pas combien de milliards lañ ci def mais ils l'ont accéléré def mobiliser toutes les ressources de ce pays là pour def ko ci TER bi tey le BRT la en fait le projet de BRT parce que le BRT n'est pas encore la ils sont en train de mobiliser tout Dakar pour que berté bi dox xam nga lan nañ ciy wër. Mhm. Macky Sall moo fi def lii teg mhm. loxo mhm. mais 766 milliards mais c'est 67 milliards parce que y a virgule 988 millions <laughs> c'est 767 milliards mais loolu du caaxaan alal la alal la ci suñu réew pour un budget de de de de moins de 6 mille 6 euh, mille milliards nga génn benn milliard bi c'est-à-dire presque 1000 milliards nga ne def naa ko jox un sixième du budget nga def ko ne damay damay xeex mbënd mi j'ai vu dans le communiqué du du du du du du, conseil de ministres le président exhorte à accélérer mais lan la fi accéléré te 2012 ba 2022 accéléré amatul finaliser moo fi nekk ah, mais il n'utilise même pas le, le mot mmh. il doit finaliser mmh. mais taw taw vendredi bi yàlla dafa àtte mmh. daf leen a weer parce que bu amul woon xañ sax duñ xam duñ nekk fii sax du discuter ci affaire inondation gis nga dakaar c'est une presqu'île cas ndox mi sànni ci géej Dakar tu as tu as vu la largeur de Dakar mm-hmm. soo xoolee kii tout est entouré par l'eau cas ndox tibb ndox fii sotti ci géej gi mm-hmm. d'ailleurs sax du yoon mm-hmm. ci réew moo xam ne ni c'est un pays sahélien cest dañuy soxla ndox tey ñaanuma ko yàlla yàlla bu mu am parce que moi je nee né dans les années 70. fekkee naa tuuti nag bekkoor. mais c'était extrêmement dure au Sénégal. man sama papa bu mag sama magu papa ca perte nagam yëpp ak ay alalam. donc su ndox amul. ñun dañuy sonn. bu ndox mi tollee nii mais dañoo war a sant yàlla surtout que nag la Nasim foofu war nañ leen félicité mhm. parce que ils avaient annoncé. que année la année bii moom. Mm. ce sera une année pluvieuse. Mm. maintenant quelle mesure lañu waroon a jël ba ndox mi du ñu def ni mu ñu def. Mm. mais yaakaar naa loolu c' est l' état qui devait prendre les devants. mais également il y a on a commis beaucoup d' erreurs vous savez en matière décologie écologie. boo def day fayeku. erreur boo def mais la zone de captage. mais pourquoi on l' appelle zone de captage. parce que ça devait capter. effectivement on l'a remblayé. xam nga ndox. ni ko sama gars yi waxee. du wàcc du wàcc yoonam. te te te rambale boobu nga wax noppeeguñ ci parce que am na feneen foo xam ne ñu ngi koy rambale ci réew mi boo demee ci technopole bii rek ña ngay rambale di dem man dama xamul plan décennal lan la parce que ñoom li indi inondation ña ngi koy def foofu ndax ña ngay rambale fépp di dem. mais technopole bi Padoa fi la ñaay bi commencé. waaw Padoa fi la ñaay bi commencé d'ailleurs boo ñëwee rek fi ñuy jëlee carrage euh, clando joor yi. Mm. boo ñëwee rek da gis ne vraiment fii beneen zone la c'est zone. Euh, écologique extraordinaire bu nga xam ne ni Sénégal dañ ko fi waroon a bay moo continuer ba Saint-Louis sa dëkk mais c'est système interdunaire cest dire ay dune la su fekkee ne yaa ngi ci kaw sa sa école ba Pikine Est ci kaw la nekk lu Guédiawaye taa moom du taa parce que ci kaw la nekk boo jógee Pikine Est jëm jëm amoo siis da ngay gis ne da ngay yéeg effectivement mais boo wàccee foo jëm wàqi naan mhm. wàqi naan wolof la Mm-hmm. da ngay wax rek naan wax <laughs> parce que ça effleure waaw la la la affleur waaw moom waaw mais jamono bi ngeen tudd muy les années quatre vingt les soixante dix jusqu'à quatre vingt mm-hmm. il y avait mm-hmm. nit ñi dem dëkk fa mais bu ndox mi ñëwee day del day jëlaat place am aujourd'hui que ñi ngi sant yàlla presque depuis 2000 il y une reprise pluviométrique mais on avait un excellent projet le projet des vallées fossiles du Sénégal kii hydrologique euh, hydrologue bi moo ma gën a xam loolu ce que l'on appelle les vallées c'est des vallées qui sont qui ont qui en fait qui sont devenues mortes parce que l'alimentation en eau n'était pas suffisante ces vallées fossiles là existent dans le Ferlo le Sine et le Saloum c'était pas c'était pas des rias c'était des c'était des rivières extrêmement puissante ñu koy soo demee dans le Nioro côté Nioro li ñuy tuddee ay bao ballon yooyu yëpp mais ça ça c'est le Sine et le Saloum plus le Ferlo ndox moomu yëpp mun nañ ko drainer c'est-à-dire il faut de l'ingéniosité ingéniosité boobu am na am na fi ku mel nii biram dem bay natt ñaata ndox la ñuy am mais kooku waruñ ko sànni ci mbedd mi ak ñeneen ak ñeneen c'est des c'est des c'est milliers de Sénégalais ki mm-hmm. sont experts dans ce domaine qui qui ont fait des études extraordinaires mmh, Pointu. mais mmh. l'état que nous avons c'est état bi ñu am mmh. moo ñu andil coono c'est-à-dire dañoo ñëwul pour askan wi man loolu laaj jàpp parce que bu fekkoon ne askan wi rek moo leen ñor du ñu nekk fii di planifier pendant dix ans dugal des milliards pendant dix ans à la dernière année le président de la République appelle ses ministres à accélérer le projet le projet est en phase finale donc il faut qu'on apprenne à être sérieux il faut aussi ñu xam ne Sénégal euh, aménagement aussi dafa am ce que l'on appelle les zones non aedificantes c'est-à-dire loolu jarul sax laajte dafa am foo xam ne nii kenn waru fi dëkk te aussi dëkk dafa war a am loolu cest dire dëkk dafa war a am euh, des soupapes c'est-à-dire fu nga xam ne nii fi la dëkk bi di respirer. mais professeur mu mel ni fi ñu war a dëkk sax ñoom ci seen jëmmi bopp. ñoo fay dem dëkk mais mais zone de captage. parce que euh, place bi aussi c'est comme foire dama lay dama dama yeggale dama lay dolli. littoral waaw zone de captage. waaw c'est comme foire. Mhm. diggante bi ñu naan dagg nañ ko. waaw lotissé nañ ko. Mhm. ak bi bâtiment yi jóg. waaw mais sama waay sama genre gi mënuñ ko. borom doole yi ñoo fa dëkk. Mhm. borom doole ñoo fa dëkk. Mhm. te ku gis bâtiment yi. Mhm. nga xam ne ci ñoom lañ jugee. Mhm. du dëgg donc ñoom ñooy xëccoo. mais bi ñuy xëccoo ñi ngi lor ñeneen. cest à ñeneen ñu nga xam ne nii wax dëgg sa yàlla. fa ñu dëkk sax bay dëkk la woon. mais la zone de Dalifort qu'on en parle. la zone de Dalifort. mais l'autoroute à ñun ñu fekkee la construction depuis depuis euh, kii mais zone de euh, l'autoroute à péage dañ naan da ngay teg euh, couche. teg bâche. tegaat couche teg bâche. Mhm. tegaat couche teg bâche mais xam nga le problème de l'eau mhm. l'eau est intelligente. Mhm. c'est-à-dire day contourner au moment où tu travailles l'eau travaille. au moment où tu cesses de travailler l'eau continue de travailler. c'est-à-dire on ne peut pas être plus intelligent que la nature. la nature a une force. xam nga y différentes forces de la nature. yooyu ñu bëri xam nañ ko. ngelaw. xeexal moom dafa jafe. ndox. xeex moom dafa jafe. Mm. safara xeex moom dafa jafe. mais man inondation yu Dakar yi. Mm. daf ma tiital. Mm. parce que ñu ngi gis rek ne ndox yi demul mais xoola oto yi wër ñu tey ñaanuñ ko yàlla. Dakar a besoin d'être évacué mmh. en cas de catastrophe mm-hmm. Mm-hmm. am na ay yeneen dëkk yu am catastrophe Dakar même a connu la catastrophe mmh. avec l'explosion de l'ammoniac port mais s'il fallait évacuer les populations mmh. comment on allait faire mhm. man loolu laa loolu laa njëkk wax ma ne man tey Dakar bu ñu newoon dans une situation d'évacuation mhm. Mhm. personne n'allait sortir de Dakar personne ñun ñëpp yàlla bu mu am mais ñun ñëpp ci coono la ñuy dugg donc il faut que les politiques d'aménagement il a de très bons plans d'aménagement dans ce pays-là mais qui ont été faussés par l'indiscipline des hommes politiques parce que du leneen les techniciens sont très forts ku mel ni Seydou Sissal mais il est il est il est il est il est il est c'est un expert boo xam ne il est demandé à travers le monde entier demal ay ay ay ay ay ay PNUD demal ci yenn organisation internationale mais c'est nos techniciens qui sont là-bas et qui produisent des documents extraordinaires je connais un Mansour qui est un urbaniste qui était au niveau du PNUD mais qui est demandé par par tout le monde. donc ñooñu. mënuñ fi nekk. liggéey ba mu rafet. am ñoo xam ne ni li leen li leen li leen ñor mooy nan la ñuy faloo nan la ñuy toogee ci nguur gi. nan la ñuy mm-hmm. lekkee mm-hmm. ba pare di yàq réew mi. Mm-hmm. il faut que nag léegi le peuple. se réveille parce que bu coono amee bu coono amee. ñoom ñooy sonn très bien. Pape Maguette naa rek. yokk ci tuuti ci li mu wax parce que il faut aussi. que ñun suñu rôle mooy alerte te il est en train de se passer une chose des choses peut-être des catastrophes environnementales qui risquent de guetter le Sénégal qui, qui sont même en train de guetter le Sénégal mm-hmm. parce que wax na ko sànq junj na ko euh, bassin versant yi fi yi fi ëppoon doole tey ji ñu koy fat te ji technopole bi soo xoolee fa lañ tabax arène nationale bi mm-hmm. ñu ngi koy morcelé commencé nañ di morcelé di euh, bu du woon tax peut-être mm-hmm. les gendarmes du foncier d'Escos amaana te ji dinañ xëy xëy suba fekk ay ay immeuble jug ci technopole mu des ban parc Hann mm-hmm. des ci yenn bassin versant yi mm-hmm. Belvédère mooy dalifoor bi foofu mm-hmm. bassin versant la woon fàtt nañ ko déjà euh, forêt de Mbao moo nekk poumon vert u Dakar te di ji fa leen jaarale euh, autorité à péage fa leen euh, TER bi donc ça veut dire que instant bi ñu ngi étouffé Dakar te dans les projections des environnementalistes dans les cinquante années à venir tous les pays wala toutes les villes qui sont situées Euh, le long des mhm. risque de disparaître mhm. waxuma la sax cinquante ans à mais rythme bi ñu nekkee nii Dakar risque de disparaître dans trente quarante ans à venir mhm. su ma juguñu ci lii ñuy jóge loolu nag alerte la boo xam ne nii décideurs yi muy ñi tay ak ñi ñëw suba war nañ ci jël ay mesures yu gaaw a gaaw parce que tey jii comme wax na ko sànq Dakar benn porte la te li fi am euh, barki dem bu fekkente ne day répété wu day répété wu dina dem ba boo xam ne ñi nekk Dakar sax waxuma la évacuer mais ci ndox bi la ñuy la parce que géej bi tamit mi avancé géej baa ngi avancé inondation yi jóg donc ça veut dire Dakar instant bi c'est une ville à risque leen mooy maanaam soit ñu jël ay ay ay yoo xam ne ne day drainer ndox mi rapidement ou bien ñu décentraliser yenn service wala ñu créer beneen ville boo xam ne nii mu nekk SPAP boo xam ne day a euh, équilibrer au moins population moom lañ doon jéem ci jëm ñaajo mmh. foofu it boo xaw ma nag nan lañ mën a déplacé li ne fii yóbbu ko foofu mu ay kii sa affaire ministériel ak yu bare bari waaye foofu moom ban kase la xam naa nag yow boo boo noppee di nga ñëw ci foofu ak suuf saak yooyu mais Pape Maga jam ñaajo dama la ci yokk la fayda jam ñaajo ñëpp ko jàng en géologie waaw euh, waaw c'est une zone instable ñëpp xam nañ ko c'est une zone instable mais on demande aux techniciens mhm. faites ce qui est techniquement possible mhm. le technicien mais dafa war a sàmm d'abord li muy liggéey. Mhm. mais boo ne ko defal li techniquement possible. mooy lu ñu mën a teg loxo rek. Mhm. xam nga gars yi rek moo ci nekk lu ñu lu ñu kii ne mhm. voilà defal li mais tout le monde sait que Diamniadio c'est pas viable. tout le monde le sait très bien Abdou Karim. ay milliards et milliards ñu dugal ko ci plan décennal. Euh,